dal leen ak jàmm soxna Aida Diallo mi tàmmoon daan feete korité ca wetu boroom këram bu tedd ba di Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou ci ambiance si kër ak bernde la ko daan amalee waaye nag feetu korité ren gi demewul noonu ci moom ndax kat daanaka am ate ngi nii bi borom këram bu tedd boobee di Cheikh Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké génnee àdduna le 7 mai 2019 loolee nag waral ba ren ji soxna si yëkkatiwul benn xumbute waaye itamit ak jàngoro coronavirus gi nga xamante ne mu ngi ci réew mi li ni mel nag tax na ba soxna Aïda Diallo daal di passé korité gi ak famem dans la plus grande discrétion ndax kat ku ne xam na ni lii di rassemblement maanaam ab dajaloog moom dañ koy bañ fii ci mim réew ngir xeex law gi nga xamante ni jàngoro gi di coronavirus mu ngi koy law li ñu nemeeku nag ca bisu korité ga ñii di wujjëm yi ñoom rek ñoo ñëwoon këram seet si ko doon ko jébal seeni ziar waaye nag bi mooy guléet ñuy gis soxna Aïda Diallo mu ànd ak doomam bu góor bi dal di photo wu ñu daat ko mën a gis ci réseau sociaux yi Faatak Tic yi ñu ngi leen di wax rek yi